Cheikh Seydi Hadji Malick mag ñi mu jamonoon teeloon fii ci Sénégal ku ci masaana bëgg a tagg Seydina Muhammad da koy duggal xalwa xalwa ngay duggal way bi nga bëgg a way yonent bi non seulement doo ci yam waaye boo génnee ci xalwa bi sa yitte yëpp mooy naka ngay def ba ba ba ba wooral ko ñetti fan te kat way yonent bi ngay waajal dugg nga xalwa génn nga ci xalwa bi wooral nga ko ñetti fan def ay salaatu ala nabi ngir yàlla brasé la ci leeru Seydina Muhammad Seydil Haaji Malick baayu Serigne Babacar Seck da baax Malick maami Serigne Mansour borom daara yi maami soxna Umul Xayri si mii toog maami soxna Asiyatu wax ñu seex wax ñu Seydina Muhammad bi mu nekkee leer ba keroog muy dugg bàmmeel te préparé wu ko daawul préparé combat daa am benn téere bu Maodo doon jàngale téere bi da doon lim xeetu alalu yonent bi xuratul absaar lañ koy wax bi Maodo di jàngale téere bi daa di ne góor gi ko doon jàngal ni ko téye borom téere bi daa juum góor gi Ahmad Karim Gaye ne ko alaaji Malick mbaa yëg nga ne ki ko bind arab la la yonent bi di làkk moom lay jàkk alaaji Malick ne ko waaw donte ki ko bind arab la mii dafa juum góor gi Ahmad Karim ne ko comme yow yaay bàyyi Serigne Babacar Sy yow mi nekk fii mën a xam ñi dëkk ak yonent a way yonent bi te juum bindal ñu téere boo xam ne bu ñu ko jàngee dootuñu juum alaaji Malick ne yaa xaayisal bahar yaa xaayisal bahari lil asnaafi indiya asnaafun biha durratun ala min al jarabi bi yal na yàlla dolli la jàmm alaaji Maalik ne yow mi nga xam ne yaa bëgg xam njool màkka jërul jël avion jërul jël bato déedéet jërul jël gaal taxawal fii boo toogee di nga toog a góor gi Cheikh Wade wala nga toog ak Serigne Habib Kébé ci ay minutes mu jàngal la kan mooy yonent alaaji malik ku tol nonu di sayyidna Muhammad ken wuro ko am diko rere xam nga luñu bëgg xam ndol màkka ay tànki bayam alaaji malik ne abdallah ku jur Abdou mutalib ay bayam hashim moy bayam abd manaf qusay kila murataka Luway khalif Fihr malik Nadar kinanata Xusaymata Mudrikata ilyas Mudar Nizar mad adnan mami góor jeex ñu ne mami soxna Umul khairisi ndax da nga càng mu ne dedet canguma سيدنا محمد موني كوي لم سماي مام بو اغي ادنان تخوال واي الحاج مالك نانا بودول وون اك لولو من لي مامي رسول الله با اغي تي مام ادم ني نه مامي سخنا اسيت سي لي ني بغا خم موي سيدنا محمد لمغا اي مامي غور نخ امنا مامي جيجن الحاج مالك ني بيندل فهن مامي جيجن ني سلمى لا عاتقه الحب فاطمه الوحشيه بنت شيبان بالواوي سلمى وليلى عد لم تلمي منهن جندله لا تنسى عاتقه وبره ثم بنت سعد ذي الكرم سلمى وليلى ila rabaabun wa sawdatun ay lamar la bu jógee ci waa ya ay ay al abiyata taxtanimi ñu ne maami soxna umul xayri si li ñu bëgg a xam mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay baayam yu ndaw mu ne jëloon wa abda kaabata jaat minhu abdi manafin maa zubayrin wa abdillahi xayrihimi ñu ne baayu sëriñ babacar sol ak abdallahi mi jur sayduna muhammad ñoo bokk ndey ak baay ñu ne maami soxna umul xayri si loolu leer na li ñu bëgg a xam sayduna muhammad ndax amoon na ay nijaay mu ne ah kay wa adda yaa lii na masud habibun alaaji malik neena ñi ak Amina ñoo bokku ndey ak bay ñu ne bayu Serigne Babacar sek da bax malik lool leer na luñu bëgg xam sayyiduna muhammad bayam biko jur bi muy jël soxna ñaata at la am alaaji malik ne ah Abdallah mi jur rasulilaay bi muy jël soxna 18 ans la am yaay Amina ñaata la jur ñaata at la am alaaji malik ne xamna ko yaay Amina mi ngi am bobu 30 ans kon papa sayyiduna muhammad yaayu muhammad rasulillah mo magge papa yonent bi 12 ans ñu ne bayu Serigne Babacar lool leer na luñu bëgg xam sayyiduna muhammad mi nga xamne mom mo gën ñep mom rasulillah yaay ñaata weer la ko yaayam ëmb alaaji Maalik ne neuf mois la chaque weer yàlla dina yónni benn yonent ne ko demal nga ne amina bu mu yëy kew bu mu poccal lingoom bu mu toj kaani bu mu rëj bëgëj bu mu sollu ndax moo ëmb gën di mindeef muy sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne bàyyi Serigne Babacar loolu leer na dañoo bëgg a xam sayduna Muhammad kañ la gane àdduna alaaji Maalik ne njool màkka matu ga ma nga tàmbale yaayam ba muy matu matu gaa nga tàmbali minuit ba fajar gay xar la sayduna Muhammad gane àdduna alaaji Maalik njool màkka bi mu gane àdduna kan moo ko raxas alaaji Maalik ne lu taq la ñuy raxas wa ahrajathu nazifan ma bihi kadarun lim la wa min tibihi tadhiru sutumi ñu ne bàyyi Serigne Babacar Sy njol Màkka bi mu gënee àdduna sallallahu alayhi wa sallam nan la njëkk a def alaaji Maalik ne maa ngi toog biir Tiwaawan jël sama lëngër sànni ko Madinatul Munawwara sànni ko Màkkatal Mukarram maa ngi dégg Seydina Muhammad naan allahu akbar allahu akbar jalaala rabbi rafiin jalaala rabbi rafiin jalaala rabbi rafiin ñu ne bàyyi Serigne Babacar Sy loolu leer na Seydina Muhammad màgg lañ bëgg a xam alaaji Maalik ne ndol makka ni mu magge ku magge nonu ñu tam la alaaji maalik ndol makka nan la magge mun shababuhu ma ghulamun shabahu abadan wal yawm shahrun wa am shahru zil karam ñu ne bàyyi Serigne babakar ci maami soxna mu xayri si li ñu bëgg xam màgg ndol makka wax ñu mu ne alaaji maalik ne njol makka bi mu amé 2 mois ñaari wër mi ngi tambalé ram bi mu amee ñetti wër mi ngi jàng taxaw bi mu amee ñeenti weer taxaw na mom rasulillah bi mu moom ma ngay dox juróom benn weer dox ba leer na juróom ñaari weer ma ngay waaxu juróom ñetti weer njool màkka ma ngay daw juróom ñeenti weer njool màkka bu waxee yow mi am 30 ans nga wax waxu Seydina Muhammad mooy dina leer sa wax alaaji Malick ne waaye li ma jaaxal njool màkka avant moo am ñaari at mel na ne baxu maa ne min xable ka min xable amay ni jëfran kaana za adabin lillahi darru adibin shabba fil yutumi ñu ne bàyyi Serigne Babacar si li ñu bëgg a xam njool màkka bi mu amee ñaata at bi mu amee ñaata at la jël soxna alaaji Maalik ne vingt cinq ans ci la jël soxna soxna sa mu jël ñaata at la am alaaji Maalik ne quarante ans la am soxna sa nu mu tudd mu ne Xadijatu loo tudd ñu ne Seydi Haaji Maalik li ñu bëgg a xam moog soxna Xadijatu ñaata doom la ñu am mu ne juróom benn doom la ñu am beneen doom ba kan moo ko juróom mu ne Maariyatu Xibti yu alaaji Maalik njool màkka doomam yamoo amoon kan moo ci magoon mu ne góor ñi Haashim moo ci mag jigéen ñi kan kan moo ci mag mu ne liir naa ci benn téere bu ñuy tuddee ibnu hisham la kubra la dabni hisham min min banaati rasulina ruqayatun faftaqaafaha taxumi waaye alaaji maalik nee na borom ibnu hisham dafa juum alaaji maalik kan moo mag ci doomi jigéen ñi mu ne wa zeynabun hiya kubrahunna zeynab moo mag ci doomu sayidna muhammad alaaji maalik loolu leer na li ñu bëgg a xam njoon màkka ba muy gàddaayee màkka dem madinatul munawwara ñaata nit la àndaloon alaaji maalik ne abubakar siddiq la àndaloon amir ibnu fuhayra moo yoroon baga bagage yi abdullah ibnu xurayza moo leen doon wan yoon imam bi ban heure la ñu àgg mu ne une heure mu ne une heure et demie la ñu àgg Madinatu Munawwara alaaji Malick ba ñu àggee Madinatu Munawwara réception ba nan la demoon mu ne am na benn jigéen bu yoroon tabala doon tëgg lillahi jaariyatun xaalan mu anniyatan fool alaya isa alhu min al juróomi ñu ne bàyyi Serigne Babacar Seck da baax Malick loolu leer na lu ñu bëgg a xam xale yi nan lañ teeroo woon Muhammad mu ne xale yi ngi naan allahu akbar jaa Muhammad mag ña lañ doon wax mu ne man ñi ngi naan tala albadru alayna min saniyatil wadaa'i wajaba shukru alayna ma daa lillahi daa'i ñu ne bàyyi Serigne Babacar Sy yi njol màkka kat moo ko daan teel ay bagage am buy génn mu ne yalil wi saadata wan naa leen di suma tahura wa siwaaka bilaali mun fiqal xarami ñu ne bàyyi Serigne Babacar li ñu bëgg a xam feebar bi yóbbu njol màkka barzaq ñaata fan la ko tëddal alaaji Malick ne 14 jours la ñol makka teud febar ñu ne Seydina ñu ne alaaji Malick njool màkk fan la genné aduna mu ne néegu ya aisha ci la genné aduna alaaji malik ne ñol makka bi mu genné aduna ñi ko sang xamna ko ki doon sat ndox ma xamna ko ki doon ëlbati néew bi xamna ko ki doon bomb xamna ko ñu ne bàyyi Serigne Babacar mu ne percal ba ñu sàngee Seydina Mouhamad xam ban société lañ ko défaré xamna njital société ba xamna directeur commercial ba ñu ne alaaji Malick mu ne wa kafanu bi bidin khul xul yamaaneetun ñu ne alaaji Malick mu ne xamna ba xam ki mujj ci bàmmeelu njor màkka toog di jooy ba fàtte daal lu càmmooñam ñu ne bàyyi Serigne Babacar Sy mu ne ko wax lu toll nii ci rasulillahi wala lu ko ëpp ndax doo ñaan ñu ne ko ah kay mu ne at mim lana nuurana waxfir jaraimana taqdi hawaijana ya waasi wa wasalaamu aleykum wa rahmatullah